que vous êtes en train de matérialiser cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui consiste à corriger un déséquilibre territorial béant et surtout à rétablir une certaine équité sociale. Lolo parce que tout simplement vous constituez la moitié du ciel je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage au réseau Kussek. Kussek veut dire djigel djigel veut dire mousseau mousseau veut dire femme Quand on est au mois de mars quand jigéen ñi s'en weer la lu cet hommage parce que c'est grâce au réseau Kussek qu'on a introduit

nous les Nous am def en l'espace de 5 ans madame la ministre monsieur le gouverneur les femmes sont passées d'un apport de 225 000 à 83 millions de francs CFA. et aujourd'hui le réseau COUSEC a une unité de transformation de, fruits et légumes le réseau COUSEC a une unité de fabrique de glace et le réseau COUSEC a une ferme de 6 hectares qu'ils sont en train de construire c'est la raison pour laquelle, Madame le ministre, je vais terminer en vous disant que désormais, le réseau Coussec appartient à Madame le ministre Victorine Dey. Madame le ministre, vous êtes la marraine naturelle du réseau Dès que naa le réseau Koussek. je la ma jotoon réseau Koussek te ma dégg ko mu fas yéene comme nous, mu leen fas yéene jàppale te le di Madame le ministre je vous wasalaam jërë ngeen jëf. ngi ñi fi ñi nekk ci animation bi di rafetlu dalal bi ñu dalal tey di njëkk taxaw ci kàddu ma sœur Aminata Angélique monga bi ma bëggoon sax bu ñëw taxaw sama wet ndax yaakaar naa ni fi am tey du leneen lu valeur solidarité yu ñuy gis ci

ñu nekk ci dynamisme bu reuy ma ne 60 000 membres yu wa na ndax man ña gis rek amna fa lu lu mu touti touti am fa 2000 membres donc réseau bi amna ñu bari ñu des ndax Calobas model bi dafa bax di law donc faw ñu gën ko tok gën ko organiser ndax doole bu ñu wé rek ab doole té lool lañu firndel tay biñu waxtaan ñu ñun def nañu ay coopérative centrale d'achat la bëgg egg ndax gis nañ ni femmes yi dañuy dajale def épargne bu ñu tojee calebasse bi dem jëndi ay bagages ñëw séddale ko suñu biir bu ñu amee centrale d'achat liñ koy jëndee day gën a tuuti ma xool modèle bi mu am solo ñu ne ñu pour loolu ñoom sax waxuñu seen soxla ñu ne leen tegal nañ leen appui

moy ñu am ay boutique lepp lu ñuy transformer ñu mën ko fa tek moy ñu am ay boutique ñeeg yi président de la république mi nga xamantene ne fu mu dekk aduna bi yëpp ñeppay joy crise fo dem ci dekk yi ñu leen di rationné ginnaw mom ak xarañteef ñu taf ba Sénégal loolu amuñu ko lu way bëgg jënd mën na jënd mu ne nak dama bëgg stabiliser prix may yaakar ci yeen réseau bi ngeen nekk ci magasin de solidaire yi ñu war a def ñu war am rôle bu important bu ñu ci war a jouer bu important bu am solo wax nañ ko fi léegi xayma nag dinañ ko def ndax li ñu yor xaalisu réew mi la li ñu yor kóolute ak organisation bi ñu gis moo tax ñu def ko fileeg diir fileeg six mois danañu toog xayma xool fu ñu si toll xool matériel bi ñu joxe fan lañ ci toll

pour défa ben financement waaye autorité yi fi teew nañu mënuñu faa yegg ma leen di waxit engagement bañu ñu jëloon ah ña ngay tàccu fële engagement biñu ñu ci financement bi bu soobee yalla di ngeen jot sen chèque bu ko défé ngeen mëna tambalé sen liggéey ñu dellu ci wat ci symbolique ku taxaw tay fi Médina Wandifa ñu né kérok bu ñu demee Thiès dañu rencontrer euh, organisation bi ñu toog waxtaan mais ñu né li dafa am dafa nek symbolique bi nga xamantene lepp luñ fi wara def tay ci don ci financement di concrétiser engagement yi ñu jëlone faw ñu dello buum ca mboy mboy ga faw ñu dello fu lepp ta commencer loolu da ci bax motax ñu né dañuy dellu ci fi tay def fi remise bi bu ñu paree léegi jox leen seen caabi ñaari auto jox leen seen onze point bascule te tàmbali liggéey bi ci 11 magasin hangar yi ngeen wax da ngeen ko soxla bu ko defee euh, financement bi li ñu waxoon 100 millions yi te 500 euh, compte bancaire yi nga xamante ne dañ ko war a ibbi auprès des mutuelles fonds pour le fonds d'impulsion de la microfinance moo leen nangul lépp lu ci nekk ci ay charges ci ay frais maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu euh, teewaay bi di nuyu kilifa yi ci toog yépp te di leen wax ni rek lii tàmbale bi kese la li ci des Euh, li ci kanam rawu li bët du ñuy bëgg di di digaate dañu bëgg def ni suñu président bëgg a def ni suñu leader di liggéey lu bari di wax tuuti te wedd gis bokk ci jërëjëf ba ngi leen di sant di leen gërëm